en fait li mom c'est beau à voir dafa rafet li ko gëna a rafetal mooy xam nga tay ji légui football boo xolé eh, équipe traditionnelle yi dañu dem légui ci centre de formation yi légui formation yi dañu euh, centre formation yi dañoo jël relais parce que aussi lepp lo gis dafa laaj organisation dafa laaj méthode ainsi de suite légui football bu rafet pour nga am ko nekkatul affaire u tag yëngal parce que au niveau bi lu taf yëngal boko defé da ngay dem tu reviens donc bo gisee SNEIPS ñukoy top diko suivre pendant des années ñu gis organisation ñu xam ni ñii ku len jappalé avec beaucoup beaucoup de moyens dinañ jëm fu sori mais aussi vraiment bo xolé depuis de cinq ans ñoo ngi ci mais regretté wuñu suñu choix quand même. au du SNEIPS sax dañ ko wara gëna gën yaatal parce que du SNEIPS rek mo nekk ci ci yenn zone nord par exemple biñu nekk mais suma ma gisee ASC yi ni ñu leen di soutenir ah, lay wan ni football bi est-ce que bokk na sax ci politique gu gars donc je pense que lepp lu xamné politique sportive la muy nek football lamb ainsi de suite basket boo xoolee sport yoy dafa melni ni sax dañoo dee amatuñu sunu sunu zone yoy parce que euh, zone nord xool naa ko mu jeex gisuma sax terrain wu basket digne de son nom ah du handball du du foo xamante ne mbër yi mën nañ dem di fa dajaloo donc gis naa mën na fal am na benn stade omnisport mais yu mel noonu dañ ko war a defar mais multiplier ko ci koñ yi mais malheureusement tey politique sportive yi daal jàpp naa ne gars yi xam naa ni bon sowuñ ci daal.